bi bismillahi walhamdu awwala ca lay iqtibaas jommal ñu karbala badatu bi bismillahi walhamdu awwala ca lay iqtibaas yi way lu jommal ñu karbala kafal xutbu baddil awliyaa oo ma falfale ma def xej buñ xejal ci waar wi ne jinne la ndono jàng laa booleeg mayuk yàlla bay imaam bu seen wayi de jàkka li may bind xibla laa na ngeen teewlu taataan xol yi jébbal ma seeni xel ma ñëw toj li ngeen raaxoon ci wesser ne leen wala na ngeen teewlu taataan xol yi jébbal ma seeni xel ma ñëw toj li ngeen raaxoon ci wesser ne leen wala bismillahi rahmaani rahim gottub ngëlem te bu yaa laa neen di làmbatu yoon saa xel mi muuru ma naan kuy ñëw te gindi ma waay gottub ngëlante bu yàllaa neen di làmbatu yoon saaxel xel mi muuru manaan kuy ñëw te gindi ma waay tumranke xam-xam waral luñ jéego jéggu ci dëkk xaaxaam ba wërëma ma faf raw ku saxayaay ndeg ment yaag jurga fu ñu xiife jawal si fi man ñanaaw ya man aji réer lañ jàppi seen fowukaay fu ñu dégg lu yëngu geesoo foog ne gindiku nan muy ak ñu déglu nan ay nax ba noppi raay ak jiixi jaaxana juux jax-jax ci suñ jëxi xel tey ngëm gu tànku wutoon ci ngëm sonal na ma waay bab jant soo taalub cil la ak daramaan jéenéer ba jolli ca kaw may dégg saara ki laay bab jant soo taalub cil la ak daramaan ceeneen ba jolli ca kaw may dégg saara laay yàkkamti wéttal ya ak xiif yàlla mar yonenam xel waa ko firndeel ci farlu jàmbu nam matiyaa yàkkamti wéttal ya ak xiif yàlla mar yone nam xel waa ko firndeel ci farlu jàmbu yàlla ne dal jàmm yegg si nga fii turwaay mu nawuru lii ngay niita yoonu ji naan sar serkal ak wataraay dal jàmm yegg si nga fii turwaay mu nawuru lii ngay niita yoonu ji naan serkal bu ñu taale mee si wi la tey jum lay jafalal maqaama yaa ki wilaay ihsaan la taamu tëral te giinu ñooñ tasawuf tamhid bu taaru ba jar naa fii ba ca ngaay ihsaan la taamu tëral te giinu ñooñ tasawuf tamhid bu taaru ba jar naa fii ba ca ngaay na seex ya ko sos ak jaaruwaay ya mu am ak lenn ci kàngamak ñu ràññe seen taxawaay jàngat na ponk ya ak wànqaase wax ca lu wér seggal la sart ya tax kuy soomu am ca war war ya war tam su jóg ngir war ci gaal gi la tey téerub mu nawir lay leere yëral ma ko saay tegtal la kàggu ya tinkil la seeni waxin wuññi la lëndëmu alkaane ña jëf ca lu aay bul weddi bul sàggane xam-xam bu sel la ngi nii war maal ko war na la moo yor yuq diina wallaay dëggug nga mag celli teg sariya fii la wéree taarub te giinu wayam yombul aruud du fi jaay mbaa nit mu sell ma woon xuqal bu kaa ula njar cafkaak masaaliku lay temtam amul garambaay xasaali à domicile suyooti ak nawawi fañ aw ba am lañu am jërtul ji war rotaraay xasaali à domicile suyooti ak nawawi fañ aw ba am lañu am jërtil ji war war wataraay jëndal mu nawiru rek xam mbooru suufi ya def leen ko seen tumta gëm ab jant jëndal mu nawiru miil xam mbooru suufi ya leen ko seen tumta ab jant sut na xoraay alhamdulilahi tey ak cant war na ma taalub ci la gindi na ma ndokkeel la war na ma waay jaaraama seex si la jaaraama seex yaa sagal waa wunte ak daramaan sa mbay rafet na sa muus tër nga sa gaay jaaraama seex yaa sagal waa wunte ak daramaan sa mbay rafet na sa meññet muus na cër nga sa gaay bas bas ba seex bàmba doon soññee ka ñaaxi ndawam yaa aw ngir ma wëyal bul tiit tabul dang daay roy teef nga royteefu maas gi nga tey tànneef ci xarnu bi la say jikko ñoŋ na sa xam-xam sell am nga médaille say say kem na tànk say kem na takku ci di diiwaan nga mucc te wér ak bépp jaam bu ci jëf xam nañ jërul di détail say kem na takku ci bii diiwaan nga mucc te ak bépp jaam bu ci jëf xam nañ jërul di détail daam yow newal aji xam mbaa boog nga xam lu ji faf ndem xam lu woo xam le moo jéemal taroy jilawaay defal na Abdou Fata fu ñu tudd yàlla mu jóg fu mu déggee Bàmba fabu bég nañ ci sab taxawaay defal ña Abdou Fata fu mu tudd yàlla mu jóg fu mu déggee Bàmba fabu bég nañ ci sab taxawaay jàmbaar nga ndaanaan nga tey saadix bu wayta dëggu ngay njoor a kon jërëjëf bul tekki sax laxasaay xéewal ngërëm defaru barkeeg yiw ak daraja yal nañ ko làq tacet ak bëte seexlu nu waay téeréb mu nawwiri leeral xol yi xel yi di bég luñ yootu buur ne ko tip surxal ci suñ ngegenaay wërsëg wér ak gudd fan am am bu takkute lew barkeb sëriñ Bamba mi nee leen ma amina waay jaajëf jaaraama Seex la yow saw ŋaañ rot na asal li des ci liggéey bi mooy kuy fëgg say ngegenaay jaaraama Seex si Sylla kon liggéey bi mat na asal li des ci liggéey bi mooy kuy xëy di wax la ni jaay asalaamaaleykum wa